loo ciy insister sànq ba tey. parce que loolu la yàlla dogal. Hmm. miskin nga. am na nag bu ko gën a bon. zéro stress loolu la faxiir dafa am miskin am. faxiir faxiir mooy ban moom. ki xëy amul ndékki. Euh, miskin moom am na ndékki waaye amul añ. Ah. am na 4 mètres yu mu def toq dara mais mënta am dara ju mat sëkk. Hmm. te bii sax day. jënduma ko sama ex deuxième femme bi moo ma ko mayoon ki nga xamni bi genn <laughs> génn nañ 8 ans say mois ah Ayo, ah, am nga palmarès ni sa serigne gi mané séna 19 jours mutas te yëruma kaf gi <laughs> ngay da ngeen genn 6 ans Seisimo. man ma takk dënër bu mu tas maa mun a nekk sa sëriñ dañoo bokk nattu ay bëj du ree jàmm ah ouais génn nag moom fu mu amee ans moom sëy war na mën a am moom huit huit ans ngeen génn sëy six yéen li ngeen waroon a sëy da ngeen ko génn ah cet la moom du jigéen ji bon doo góor gu bon cat la rek xam nga yow nit ñi dañuy topp sëy leen bu ngeen sëyee du xam nga cetu leen cet la cat la génn huit mois huit huit ans sëy la cet la de ah? hmm, cet la lii moom du dara bu mu la sax gêné cat la rek du jigéen ji bon doo góor gu bon hmm. cet la mais sëñ bi xanaa da nga commencé da nga commencé dem saal biceps biceps yaa génn. commencé naa de mais tey. ATM. ay tam mi noonu. tey ay jigéen laa bokkaloon. maa mujj toog de jigéen ñi daal. <laughs> te tey yoga nga demoon yoga. yoga xoola yu ñàkk fayda lay def lool. xaaral woon la. damaa toog waa ji mu ne defal nii. One, two, three, four. Maju. One, two, three, four. Mbas ma nekkee nii. mais gis nga benn bi nii laa mujj def. mu get up, get up. gertoo gertoo. mu ne ma sa xol bi suy dóor waroo toog da nga war a taxaw. ma demaat ñëw mu jox ma dombeelu ndaw na ma yëkkatil ma yëkkati mu mu oyof. waaw mu ma set ni nga may jox dóor ma set dóor ma set ma ne ko na daal mu ne ma defal nii yëkkatil ma yëkkati ci kaw. mu ne ma wàcceel ma ne baax na ma yemal fii ma yem fii mu naan un deux <laughs> ma ma nii teppal sa mbagg yi ma kepp mu ne ma bitil ma bitil ma def nii wàcc mu ne ma écarté ma écarté mu ne ma sëgg doo ko sëgg ma ne nii gis nga bi ma al Assad bombardé ni di Rome if it cannot stop you can stop Ni dalay soppi soldat ca saati ngey fandi bo non tey dama am gàcce man góor laa jigéen moo doon na ay jigéen laa fa nekkal ñii dem man mënumaa def moo tax gis nga àdduna bi looy rëy làmmeñ rëy làmmeñ daf fekk nga mën ko <laughs> tey soldaaru Bachar al Assad la am naa nga dawal ba mu yàgg nga ne dëgg dëgg sama sama mbir daal communication la non man xam naa ne lii du suma mbir mujj gi dafa ndaw si mu nekk ci kaw man ma nekk ci te ñun ñëpp ak ma ne ko dama am nerf sciatique nerf sciatique bu bon ma daw génn bi ma ñëwaatee non tubaab moo sew bu la encouragé ne vraiment let's welcome him back he's back come ñu tàcc ma xoolal ma mel na coupable ñu dox nag jënk jënk ma dem mu ne nii la nii la ñu ne nii one two da ngay tëb futteeku non tëbaat bi tëbaat bi tëb bi tëb bi loolu gis da nga bañ da nga bañ ñu woo bi sono. Mbak sering sono. Iya kak. Saya yoga. Kalau da itu tëb week bàyyee ko nii. di nga ko def quinze fois. ba pare sa dur, dur. naan dër dër. dër dër nga fa ñu may ya, trente secondes nga noppale di mel ni benn seconde te ay kaf la koy boole ree ok give it to me nga naan ko ni yàlla wàccee na ma dem ba sama loxo jënd ma ne you know my vitamin is very good ma sama vitamine dafa baax au lieu que di topp bàyyil man may def ñaar rek bàyyi. <laughs> la ilaha illallah. dama demoon am traitement. <laughs> kon dal yow tay sport bi nga demone yëg nga ko yëg nga ko am nga ko. sa sa yaram yëg na ko. tay naa dañuy wax delu wat suma ma live ni rek ma ngi duggal yapp ci four bi damay lek touti rek dem mais benen semaine damay def manam 19 jours yo xamne duma lek ma 19 jours yo xamne do lek lekk suukar. no sugar cal. no sugar. yeah duma lek sugar duma lek lem duma lek loolu yep hmm. di entraîner di dem yoga di dox cardio bi lay defar cardio boo pare ci loolu defar yi defar tanki fambi fambi tuddu nga lu ma am loolu toj bir bi xam nga bir bi suma ci duggé suma bir bi day daw hmm. bir bu daw mënoo koo booleeg ancien cardio bi ndaw si dafa soxor de ki ku messante <laughs> tay tay ñu ngi wax nga ni da am yoron <laughs> yoroon yeugal sa kër te dekk bi <laughs> amul sa way kay jappale ma. non man bu tay senegal lo japp sa may ma loxo tay defal ni mi fi manam carton yi may may may daj yi may wacc pour nit montel la da ngay jël rendez-vous indi ko mu ñew montel la facture la nga fay ko mu def. Amérique neex na waaye baaxul. léegi yow nga war a yëkkati nga war a yéegal lu diis ci kër gi. bilaay. nga war a yéegal sa xel nekk ci kër laay boobu jàppale ba gisoo kenn di nga gis waaye amul ay kaay kaay kaay teg ma loxo. maa bëggoon nga yem mooy daal nee naa oh be careful. romb ne la dem bàyyi sa xel dem na. mais sëñ bi. yes. sëñ bi nak tay tay bëgg naa ñu gàmm lu neex. uhuh waaw tay bëgg na nga waxtaanal ñu ci yonente bi. ba bari xam nga ne amna ay talibé Amérique mais suma talibé duñ joxe addi duñ ma seet si duñ ma ziar ñom dañuy tok rek sëñ bi yow lañuy top bo ñëw suma état seet si ma te ko ci dem état ba xam ne yaa ci état mu di la daw. ah non ñoo ñu kon duñ ay talibé parce que ñatt mo tax. dañuy ragal ne di nga soxla service. ñu dawal seen oto di la yóbbu taa amut Amérique ñaareel ba dañuy foog ne lu yomb lu nekk Sénégal moom nga fiy xaar jox la xaalis te seen dollar bi moo leen gënal kaamil yàlla te bu ñoom ñu ngi mayee fële kaamil fii dollar ñoom ci dollar bi leen jëm ñetteel ba wax moo yomb Amérique waaye jëf moo jëf dafa am leneen lu muy laaj. wax lañ gën a mën a. donc moo tax man suma taalibe yu nekk Amérique amaluñ ma benn njëriñ loolu sëñ bi yow laay topp rek. ah. ma ne amaluñ la njëriñ lu dul sëñ bi yow la ñuy topp. waaw te topp bi soo ko seetee ba ci biir toppuñ kenn. sëñ bi waxtaanal ma jël appel bi. suma talibé amérique yeen yeen lay top rek ngeen man ak soñu suñu état septième si dama bëgg nga septième euh dama la bëgg a daggal ban hôtel nga bëgg dëkk talibé amérique hmm. boo ñëwee boo ñëwee Atlanta wax ma ko bàyyi boo ñëwee Texas maa ngi fii hmm? moo tax ah xam naa ne sëñ Touba de fi mu jaar ak yàlla nii tamit mën nañ koo jox de mën nañoo joxe dëgg dëgg dëgg mbàkke mbàkke Touba murid hmm, hmm. ne suma taalibee duñ joxe léeg-léeg sax nga gis ku la woo sëñ bi <laughs> ma ne ko ma dama laa bëgg de xaftaan bi nga soloon laay fee ko démb suma adresse mu ngi ni yónnee ma ko ma ne oh loolu kon lii moo fi xew yàlla baax na Faye Birame it's been a long time Faye Birame yëg nga ne Issa Fall takk na ñaare Issa Mbaye Fall de takk na ñaare yàlla na ko ñaareel ba jig su ko ñaareel ba jigee rek dina baax incha allah Matar Diop nee na su ko ñëwee Espagne Issa Mbaye Fall takk na ñaareel de liggéey maa la ko wax moom takk na ñaareel de suma commentaire yi moo dàq suba la tabaski Mohamed Gueye, joyeux anniversaire. mbës tey dafa sañse dafa sañse tey moo sañse sëñ bi def ni mbës Ahmed Gueye ñaanal naa la incha allah nga bëgg Cheikh Tidiane te muy dëgg sokol xol bi nga dund ci mbëggeel gi dee ci mbëggeel gi non abdominaux yi commencé guma ko abdominaux yi commencé guma damay bàyyi ba ci kanam beneen mois laay commencé mais t'inquiète dinaa ko xotti ci digg bi delloo ko tëj yii mu doon un deux trois muy six loolu yàggatul sax tuub di jéggalu liggéey la woon loolu liggéey la woon liggéey ci liggéey bi la ma ne sëñ bi yes ma ne tey man maa am envie tey nga nga nga nga nga gàmmul ñu lu neex maanaam waxtaanul ñu ci yonent bi kan mooy yonent bi guddi gi yonent bi lu ko waral mais ci ci côté bi nga xam ne nii xam nga yow da waane simple ci waane googu noonu ci ci ci ci ci bàkk yonent bi jaay ñu yonent bi ba suñu yaram di frison lii laa am envie ma mais balaa ñoo yegg ci loolu yow sëñ sëñ Cheikh déglu nga discours am bi. sëñ Cheikh gaañu la sëñ la. astafurlah astafurlah sëñ Moustapha déglu nga waxtaanam bi. am na lu ma ci déglu. léegi sëñ bi man balaa balaa moom li mu wax gàmmu buñ nee gàmmu lan moom mooy gàmmu ci dañoo war a dañoo war a kilifa gi waxtaan dafa war a choisir thème na ci thème bii lañuy waxtaan dafa wara a tàmbali ci yonent bi yem ci yonent bi dafa war a tàmbali ci alxuraan yem ci alxuraan lan moom mooy concept gàmmu. fàttaliku yonentu sallallahu alayhi bëgguloo ko nit ñi dajal lekkandoor ak naanandoor fàttaliku yàlla ak tudd yàlla képp mooy gàmmu amut leneen amul leneen li mooy gàmmu mais bu fekkente ne tey dañoo constaté dañoo seetlu ci guddi gàmm kilifa yi toog war a waxtaan ci biir waxtaan wi ñu ciy sentir lu mel ni ay ay ay politique ay sànni track ay tontu yu ne mel est-ce que loolu lu ñu war a xaar ci guddi gàmmu la. ñii déglu la ñuy laajte seen xel yi ndax mat na pour comprendre lan la moo war kilifa diini mais Serigne Moustapha Sy ay ndaw a ko topp ci àdduna bi la nekk Sénégal lay dund bu waxul ci actualité Sénégal lan la war a wax. Hmm. te gis nga mbir mu nekk. faaw ñu koy àtte outside the box maanaam li xew mm-hmm. dangay ngay génn li xew nga mun a xam lan moo xew lan moo xew ay jamono ci ginnaaw kilifa ak diine bu mënoon a ànd ak sonko dëggal ànd gi wane ne moom laa àndal bari wudde mm-hmm. amul benn xalifa général bu fi ànd ak sonko mu fës mm-hmm. kenn leen fi déggoon doomi alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh mu ne man awma sago ci Sonko hmm. sëriñ Moustapha Sy moo ànd ak njabootam ànd ak Sonko ba muy métti bàyyi ma Macky sàll ak nguur gi kon su yàlla defee ba nguur am hmm. Sonkook Jomaay mën a dem Medina Baye mën a dem Tiwaawoon mën a dem Touba ñooñu kilifa di nga leen war na mën a seeti sëñ Moustapha Sy ndax ba muy métti bëggoon na ko wan ko ne bëgg naa la jegeel ko boppam gis nga nit su la bëggee da nga koy delloo njukkal man duma mustas mais dafa am lu fi xew ñu teg ci suñ bët ñun ñëpp dégg neen fii gëmmal dóor président woote kilifa dina taxaw na ko gëmmal dóor nit taxawaat fii na ko président dafa war a rey pendant temps boobu yépp Moustapha Sy ak Moustapha Sy ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko mu di ko accolade di ko fóonu wane ko parce que sëñ Moustapha dafa toll foo xam ne ci wërsëg toll foo xam ne ci xam-xam toll foo xam ne ci wilaaya faalewul ku yàlla bind fekk nekkoo ci yàlla mi la bind lim la sant moom Moustapha faalewul yoonam nekkul ci yow waaye bu àndeek sonk foofu na ba nguur ñëw man suma xalaat maa ko moom d'accorduma ci Ousmane Sonko ak Diomaye séti ñëpp jéggi ko rafetul. ndax bi muy metti mo mo moo fësaloon boppam dëggal boppam ànd ak ñom di joxe ay discours yo xam metti won na ñu japp ñaari député ñaari député moustas leen japp tay yewi askan lañu la hmm. tej leen kasso 6 mois fekk neen ma ci kasso gi man mi di wax. xam nga député bi ñëwee lan leen jëkalacc Hmm. fan la sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh nekkoon fa leen bëgg a tëdd ñun ñu ne leen den ko defaraat néeg boobu amatul maa ko fekkee dama ko digg ñi mu koy laajte mu ne néeg bañ tëjoon sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh moom fa la bëgg a tëdd ñu ne ko néeg boobu nekkatul fi den ko defaraat. Hmm. ma ma wax ne. Hmm. loolu xeeblu sëñ Moustapha la waaye yabaate la yi xam nga yabaate du lu garaaw yabaate acte la. Mhm. mais beneen bi ci des mooy Sonko ci boppam taalibe yi ñoo am lu leen naqare ci seeni sëriñ sëriñ si ànd ak Amadou Ba ak Macky Sall taalibe yi sanctionné sëriñ yi ne Sonko yow mi ñu àndalut yow leen fanaan Mm-hmm. Sonko demut Laayeen moo gañ a Laayeen demut Canaba moo gañe a Canaba demut Medina Baye Niass moo gañ a Medina Baye Niass demut Tiwaawoon moo gañ a Tiwaawoon demut Touba moo gañ a Touba Amadou Ba dem fépp gañewut fa dara léegi nag taalibe yi la leen naqari woon bañ romb seen sëriñ siñ gëm seen xol bi suñ taxawee ñu julli seen ginnaaw buñ dee ñoo leen di rob yow boo demee jubóog ñoom te li naqari woon taalibe rek lee boo ko yaa ngi ñàkk base politique boo xam ne yow Sonko sax mesuré wul ko xamoo conséquence bi hmm. ndax bu sëriñ si doon yokkal nit dara ci politique wala doon maye nguur yow doo ko am amul ba moo koy am su fekkoon yàlla nguuram sëriñ si la ko jox Amadou Ba la ñuy jël mbubbi nguur Amadou Ba leen koy solal yow ñu ubbi la kas wala ñu delloo ji la Casamance waaye nag sëriñ yi kenn moomu ci nguur ñoo moom seen ngërmande ñoo moom seen kàddu ñoom moom seen choix seen ngërmande Amadou Ba leen ko jox seen kàddu Amadou Ba leen ko waxal waaye yàlla mi moom nguur moo ko jël jox ko jomaay nam ko neexee ñëpp la bett mm-hmm. ñëpp la bett léegi yow yaa ngi demaat di jubóog sëriñ soosu fu de nga dem fii nga foon loxo fii nga sukk fii nga toog fii nga joxe say discours taalibe dafa moom lu leen naqari seen kër sëriñ mm-hmm. mooy seen maam day doon taalibe seen baay doon taalibe ñoom ñu doon taalibe doomi sëriñ bi du la gën a sonn ci njàng bu xam-xam jotee moo koy am bu diplomate jotee moom leen koy jox muy tukki di ñëw lii moo naqari taalibe gisatuñ seen bopp seen kër sëriñ li moo naxari taalibe yi gisatuñu seen bopp seen kër sëriñ dañuy dem nii di maslaa rek wala su fekkee kër Baay Ñas bëgg neen bàyyi mbëggeel goo xam ne amul fu ñu jëm bu dee murid leen bëgg neen sëñ Tuubaa mbëggeel goo xam ne amuñ fu ñu jëm bu dee tiijaan leen bëgg neen sëñ Babacar Si mbëggeel goo xam ne amul fu ñu jëm waaye ku leen doy ci njaboot gi moo manqué ku leen doy ci njub ci xam-xam ci mànd ci ragal yàlla waaye ci suur àddina bàyyi leen àddina ku leen di jàppale ba seen mbiri àdduna dox lii la taalibe yi manki giñ ko manqué nak motax sonko bim ñëwé indi patriotisme ñu na ah fi mo bax ñun dañuy dem and ak sonko ñu dem and ak mom sonko falu and ak serigne ci té ñom dañu bëggoon ko xamné du top serigne ci waye du contre serigne ci day tal sénégal pour sénégalais defar économie bi indi sécurité bi yemale ñu ñun ñëpp amul mbàkkeeg séeg ñas ñëppay yem ci Sénégal ku ne la nga ëppale sa morom ci xàq nga jël ko lii la lii la ndaw ñi yaakaaroon ci Sonko mm-hmm. waaye xoolal diggante gàmmu ak màggal ñaata million moo génnee ci keesu état bi jëm ci màggal jëm ci gàmmu yi mm. ñaata moyen état li bokkoon na ci liñ doon dénoncé mbës hmm. Sénégal du murit du tijaan du jullit du chrétien Sénégal Sénégal la hmm. ku gëm màggal dundalal ko sa bopp ku gëm gàmmo dundalal ko sa bopp état bi warta dundal gàmmo yi hmm. ak ziyaare ak màggal gi waru ko parce xaaruñ loolu ci moom waaye seigne Touba mu ngi cieur bo xamne ci yalla ñuko bëgg bu màggal gi doon 1000 milliards den koy def te duñ ko yek kon xaruñ état soxlawuñu état waru ko fa duggal hmm. la ngay dépasser ci màggal ye gamoy boko paré bam jeex ay milliards la. Hmm. ben rew warta dajale milliards yoy def ko ci màggale ki gamot ta priorité taxaw. lolu ndolal Mm. lay réalité ak vérité fekk nekkuñ ci rek waruñoo def loolu man jënd naa nag ci gàmmu gi yow peut-être jënd nga ganaar wala béy loolu nga am mm. mais ñun ñun ñi nga xam ne ñoo gëm gàmm ñun mm. moomuñ Sénégal la ah. am na ñu gëmut gàmm <coughs> ñu ngi ca réew ma ñu ngi fay tax waa seen xaalis bi ñuy jël di ko yóbbu ci gàmm ak màggal ndax neex na leen kii wax nag xam na gàmm man xam naa gàmm. bëgg naa gàmm gëm naa gàmm mais faw ñu doon nandite pour mën a séparer état bi ak nit ñi ko dëkkee ak li war état bi. man dama contre màggal jot ñu dajaloo dem ci sëriñ bi. naan waa liggéey bi nangam nangam fii la tollu ñu naan waa sëñ bi lim santaane woon def neen ko sëñ bi gërëm bu déwee ne sëñ bi sàkkuwaat sëñ bi gërëmaat non naxante la mhm. pour man li war état bi du màggal mooy xam na ne doomu sénégalais fii palaas bu ñu fonk la bi ñuy nekk ci football dañu dem tabax stade bu cinquante mille personnes pour ñu mën a tàcc yuuxu mais sénégalais yaa fay dem pourtant du diine de mais dafa soxal sénégalais noonu leen war a xamee ne fii ñu jëm muy Touba dafa soxal sénégalais na fa teppi yoon naa recenser marché bi ñu mën di exposer ay bagages. dineen soxla courant naa fi def poste courant dineen soxla ndox naa fexe ba sénégalais su ñëwee du mar mais pas situation màggal gi rek bu màggal jeexee Touba ëpp na ci palaas yi ëpp nit ci Sénégal mais doomu aadama du màggal rek la war a dund sénégalais nguur du dara lu mooy réew doomi réew mi ak seen alal mais nga def assainissement Touba bu baax ba ëllëg su màggal jotee yoonu nguur gi nekku ci fii ku fi dem si sa sëriñ xam nga la war hmm. sëriñ bu taalibe bi di ñëw ci yow xam nga li la war lu ci yooni nguur lenn rek la nguur gi di def teg ay ambulance pour ku xam ñu dugal la ci yóbbu hôpital hmm. teg ay policier ku xeex ñu àtte mënate yóbbu tëj sécurité ak assurance leen soxla ci nguur gi par 500 mètres ñu teg fa ay policiers yu taxaw gendarme kenn du daw lu bari mais sàggante nguur gi moo tax accident yi bari mun nañu ne saa yu ñu màggal bilan plus de dix fukki bakkan yooyu dee réew mi soxla na leen. mënuñoo mhm. def par cinq cent mètres ku daw lu pour ñu gaare la taxaw ku yëpp nit ci kaw ñu ne leen oto ci kaw du pour nit. Mhm. mais jour màggal code de la route koy sànni jouru gàmmo code de la route koy sànni jouru làmb code de den koy sànni suñ paree ne dañu bëgg Sénégal bu bees ay patriote leen c'est faux munul nekk munoo dem ci dëkk bu mel ni Touba te civilisé wuloo hmm, yii xeetu dëgg munoo dem ci dëkk bu mel ni Medina Baye te civilisé wuloo yow da ngay dem te yàlla tax bëggee yonent bi mais amal comportement yonent bi toogal nice laal sa parfum chauffeur bi xamne ay julitu sel la yeb mu daw ndànk dal ndànk mais déedéet yaangi xalaat yi ngay am ak bo demee wàccee li ngay jëlaat respecté wo nit ñi yow it respecté wo sa bakkan fu ne nga lang té sax ma wax la fa ben sew-sew lila magal wala gam mo jaral ba nga yéeg ci kaw auto juk japp julli rek jaralu lako deug la mais ban yalla ngay jaamu ban diine nga nekk yaa ñeme dëgg donc pour expliquer le que Ousmane Sonko ak Jomaay ak seen nguur gi mhm. man leen di ñaanal yalla buñ fàtte mukkul leen fal mhm. li leen faloon moy nit ñu mer la leen naqari feeg wut ñom waru ñew jubok ennemi bi ñi xam nga ñan leen japp ennemi nguur gi fi nekkon den japp ne ñoo lek alal nguur yeb mo seen fii ku transhumé ñu mere Sonko ñaareel ba sëriñ si dañu jàpp ne sëriñ si ko yàq ak géwél yee foog muy dox bi ñoom loolu lañu ñu gëm c' est vrai ou c' est pas vrai c' est autre chose mais ñoom loolu leen gëm. léegi nag gëm gi ñu ko gëm nii moo tax ñu jël seen carte jox ko Sonko. Mhm. Sonko campagne ci seen gëm-gëm mu dox. demu Touba bañ naan kër gi la dugg demu fa demul. parce que Sénégal du Touba. demul Medina Bay parce que Medina du Touba. demul Niassane parce que Niassane du Touba. dafa dem ci dëkk yi mën dem rek wax ak nit ñi gaay wax ñu dem woote 54 ci électeur yi ñoo ne Sonko yow ki nga fal mo ñu doy. ñun yeen leen wóolu doxal leen ba 2022 ngeen ñëwaat ñu sét kan lañuy ñuy joxaat. macha allah. kon pour expliquer la mhm. hmm. donc mu ngi fàtte li ko fal. gis naa ko mu dem si kër sëriñ yëpp jomaay dem fu nekk ñu def discours comme ni Macky Sall daan defee discours. taalibe yi tàcc yuuxu mu neex su demee Tiwaawoon waa Tiwaawoon yi estati su demee murit yi estati ak a sell ak bi taw bi di ñëw ak daf ne nii daf ne na yii leen doon defal Macky Sall ba bu ñu doon wax Ousmane Sonko dàmpalu li ñu doon wax faluñ imaam. dëgg la njiitu réew la ñuy fal. dëgg la ñoo njiitu hmm. mais njiitu réew dañ koy xaar ci urgence su réew mi ak jafe-jafe réew mi mais du jubóog sëriñ si ak foon seen loxo yi. taalibe yaa dàq foon loxo sëriñ si. du problème sëriñ si am nañ ko foon seen loxo yi ba mu xottee ko. discours am nañu ko mën a defal sëriñ si araab yu neex soxluñ loolu. mais neen tegu ci seen priorité bi leen fi indi woon xam nga man soo gisee su ma toogee tuuti xam nga su ma noppee woon léegi jeex na waaye damay dëggal toujours ne man opposant la parce que gis nga mbës hmm. fekk bàyyiwuñ ànd ak nit ba mu daanu nga dem ànd ak keneen duñ mun a xam lan mooy dëgg ak lu dëgg hmm. mais ñoom neen xam ne neen xam ne ñi leen fal dafa am lu ñuy xaar ci ñoom ñun ñi leen falul ñu ngi xaar ñu échoué dëgg la te bu fekkoon ne sëriñ sii rek rek rek rek rek la wallaay ñoom duñ fal dëgg la campagne ñu leen joxuñ leen xaalis ñaana ñu leen ànd ñoom ñoom óoluwuñu leen sax far mhm. maanaam sëriñ si dañoo wóoluwuñ ñi tay kon yow comprendre nga dal taxawayu seigne mustapha mu gis bopam seigne mustapha mo nek ci deug sonko kiiwu ko mo nek ci deug te xam nga li gëna bon hmm. soppé bu dof lu ne daf la koy defaral bu ko yàqul du lako ko defar sëñ Moustapha dafa am mom dafa am kilifteef du kilifa rek invité ci amna kilifa yu amul kàddu mom dafa am ci mbolom su taxawé wax ci sonko yow nga bëgg sonko perte seigne mustapha affaire la wax ci lu rafet mais ñu ngi koy tafaka saga ak def lu ne. Mhm. parce que dafa wax ardeem ci digganteem ak sonk ñu koy tontu ñooñu xeexaluñ sonk bëgguñ sonk duñ patron seen bop leen fi nekkal. mais man suma kilifa sonko la Mustafa Moustapha kilifa la ñoo daan and di akolatante nekk benn problème am na Mustafa Moustapha wax na duma ko attaquer ndax momi dafa am njabot njabot gi dañuy jóg day yaangi ubi front yu bari ci guerre. arrangé wul ku nekk ci nguur benn coup appel mun na ko régler benn visite mun na ko régler luy problème bi na Sonko yëkkati téléphone woo papaam sëñ Moustapha bàyyi la ci moom sëriñ la ci moom kilifa la ci moom ndax buy téeméeri sénégalais am na ñu bëgg sëñ Moustapha. Mhm. sëñ Moustapha dafa bëgg Sonko Sonko bëgg sëñ Moustapha ba bañu kenn kilifa yi musul leen saaga musta wax ci ñoom lu ñaaw. benn coup après réglé na ko mais mbocoro cocco-cocco yi ci nekk di wax neen tëj seen gémmiñ ñi xam ne diggante ñaari paaka gën ñaw rek te ku ci dugg yaa ciy dagg kii kilifa la ci àdduna mooy premier ministre du Sénégal du poste bu ndaw kii kilifa la ci diine la ko fal du ko folli ba àdduna tukki te réeroo amut fa soppe bu gëj a gis soppe gis ko mu seeti ñeneen mu ne man suma soppee bu ma sañoon mu ñëw ci man lu fi ñaaw sëñ Moustapha bu bëggutoon Sonko sëñ Moustapha da nga a dégg mu ne dama Macky seet si. Mm-hmm. talu ko mais dafa bëgg Sonko ci xolam doomam la taalibeem la. Mm-hmm. te moom dafa dëggaloon boppam ci Sonko ndënd ko benn yoon Sonko seeti nawleem yi dem Tiwaawan gam bokk dem Medina dem Touba gisul ko mu jàmbat ko mais lii dafa nice mm-hmm. na Sonko dem woon ko na ko papa maa ngi nii fa ma dem yow laa fa teewal wax ju rafet lu mu lu mu defaru du ko yàq léegi ñi mel ni mbës amuñu palta amuñu place amuñu xam-xam jànguñu duñu dara ci réew mi bëgg taal seeni caméra wala ñuy samp seeni live di wax ci kilifa gu toll ni sëñ Moustapha di wax bay jéggi ay kàddu ñàkk xam rek loolu ci suñu ci suñu réew ñu yar ñu ci warmaal mag ñu yar ñu ci am teggin ci am yar tey ñuy doxale boobu doxalin man de lu rafet laa ci gis man bi ma ko seetaanee dama ne mahbuubi mahbuubi mahbuubun soppe ci soppeel rek man ni ma ko analyser man. dafa bëgg Ousmane Sonko. àndoon ak moom ba muy nit dëggal boppam bi sëriñ si dawee yàlla mooy joxe nguur sëñ Moustapha falu ko yàlla moo jël nguur gi jox ko Jomaay ak sonk Sonko dem na feneen communication amul fa sëñ Moustapha namm ko ne gisuma ko. mais Sonko na yëkkat téléphone papa maa ngi ni mu jeex. Mhm. na ne sëñ Moustapha fa ma dem yow laa fa teewal parce que mbëggeel gi ma la bëgg moo tax ci yow laay mujj. Mhm. imam Cheikh dafa ñëw gambi di conférence. mu ne ngir mandali dama koy xaaj ñaar dafa am ñu may njëkk tudd am ñu may mujj tudd mais ñu may mujj tudd laa gën a gërëm ñëpp bëgg mu mujj leen a tudd fekk dafay bañ liste bi jeex. te fekk ñam war a gërëm des na kon mujj ci sëñ Moustapha mën na neex xam nga ne sëñ Moustapha nii nii nii rek bu ko defee taalibe yëpp dajee te doo dégg benn annonce Sonko na ko maa ngi ñëw samedi dama bëgg ñu daje mu woo ko nga gis Moustapha génn ci àddina fu ñu mën a dem teew ñu waxtaan luy développer senegal bi sëñ Moustapha di développer senegal Sonko ngi jàng Sonko jàng na ba ñëw ci politique ba changé poli taarixu politique gu Sénégal sëñ Moustapha ànd ak moom mais ñaar ñooñu seen ànd moo gën tàqali ko ndax Sénégal kenn mënu koo defar dañ koy bokk defar. te sëñ Moustapha mën na jàppale Sonko ci liggéeyam waaye Sonko mën na jàppale sëñ Moustapha ci liggéeyam kon ñu ànd mooy intérêt Sénégal. Mhm. man du ma saaga Sonko ngir sëñ Moustapha du saaga sëñ Moustapha ngir Sonko parce que waruma lu suma yoon. defar ci moom a war kilifa ak aada ak kilifa ak diine ànd rek buñ àndul day métti de day métti de te boo xeebee sëñ Moustapha ne Sonko faalewu ko ngi ci erreur boo xeebee Sonko ne sëñ ko yaa ngi ci erreur ñoom ñaar ñëpp fa yàlla falee sañ Moustapha jox ko wilaayatu fa la falee Ousmane Sonko bigam bi mën na lu kurus mënul da dem sëriñ mu bindal la jox la càngat. jox la saafara jox la sarax Ousmane Sonko mën na bind tay tay tay tay tay bind rek nga am milliard kon yàlla fi mu falee kurusam bi si kurusi sëriñ si la falee bigi Sonko bi foog ñu xam yàlla pour mën a respecter nit ñi man ànduma ak politiquement doyut ma politiquement mais su ma ko gisoon dama ko sumil suma mbaxana ndax kilifa la hmm. yàlla moo ko fal fam falee sëriñ bi may sukk di raam fa la falee Sonko imagine nga deux mille euh, euh, ñaari at ci ginnaaw sëriñ Muntaxa Xalifa toog jomaay toog ci kaw su muyun mbaxana muri di peseñ ko imagine nga loolu hmm. mais tey fu sëñ Muntaxa toog lay toog ndax fañ falee sëñ Muntaxa leen falee jomaay ma wax lu doy waar te dëgg la te duma ma faale ku ko déggul ba analyser ko leneen su ma yoon nekkul ci ndax man duma ma maslaa ci dëgg fañ falee jomaay moo gën a dëgër fañ falee xalif général yi ci réew mi lan moo tax ma wax loolu. du tax. Mhm. xalif général yi ku ne sa kilifa kër nga bu tiwaawoon waa tiwaawoon rek lay contrôler contrôler wul Medina bàyyi amu fa ndogal. Mhm. bu muriti Touba rek lay contrôler ak muriti amul dogal tiwaawoon waaye jomaay mooy seen kilifa ñoom ñëpp comme ci ne bul génn doo génn. Mhm. mooy dogal àtte buy yokkal seen dund ak buy wàññi seen dund comme neex na nga doon fanatisme waaw suma sëriñ bi noo kii sëriñ bi lay tuutil palak jomay moo ëpp doole falak sëriñ si ndax sëriñ si ku ne pàcc nga yor jomaay a yor yépp moom Sénégal ci boppam la yor moom mhm. président kullu sénégalais ñoom ñëpp mooy seen président ñi baax ak ñi bon ñëpp mooy seen président. mu Muntaxa du sa njiit dama bëgg mu leer de ku ci nekkul li sëñ Touba digle sëñ Muntaxa du sa njiit de yaa ko def njiit mais moom du sa njiit. dëgg la moom den koo sàmmloo. ñan leen ko sàmbaloo ñi sellal te jëm ci yoonu Serigne Bamba ket amul droit dugal ko ci bokkul même moo appliqué ci Serigne Mbaye Sy Mansour moo appliqué ci Cheikh Mahi Al waaye Diomaye ki bon sax ci moom la bokk. Mhm. xanaa moo gën a yaatule. mu koy neex moo koy naqari. ki ko voté ki ko voté lool. juddool Sénégal amal ka kayit bi rek. kon neen rek la te xam yàlla. xam ni mbir yi tëddee ñu mën a noppale ku mën a jàmm ji yàlla. moo tax fu sëriñ si toog. Diomaye toog fa te balaa sëriñ si di toog protocole Diomaye bi ñooy décider sëñ bi di toog. ak na muy toogee ban waxtu lay ñëw dañ koy xam. président du caaxaan premier ministre du caaxaan kon diggante sëñ Moustapha ak Sonko man gisuma ci benn problème man ma gis soppe bu nam mu soppeem rek ak góor goo xam ne ci li mu bokk gis na ko ci nawle mu gisul ko et sa normal mais sëñ Moustapha foofu la am fa la waxee Youssou Ndour bu lu ko naqari day woy ceeb bu sew moo ma gën a wax bu sew man lu ma naqari sama laaj bi laa koy waxee mais sëñ Moustapha gi la am dajeeg taalibe wax ak askan wi wax doléance mais yar moo koy déglu. non gunóor yi Sénégal nag léegi jeunesse bi yàq ñàkk nañ yar amatuñu worma. non mais bu ñu doon naan ma topp ma déglu ma yar leen ñu doon te ma lu ñëw rek nga analise ko positivement te jàll. mais toog rek waa sëñ Moustapha yow yaa ngi fàttaliku nangam Sonko talu la ah ah Sonko mënta jiite réew mi te talut sëñ Moustapha. sëñ Moustapha mënta nekk ci réew mi te talul premier ministre koo xam ne tey bu taxawoon ne hey dix mille sénégalais wuyu ko te yaay seen président su leen ne xotti leen seen carte d'identité ñu xotti ko bu leen wote du ñu wote sëñ Moustapha am na doole boobu kooku réew moom dinañ ko sàggane yow tamit du demee noonu man duma taalibi sëñ Moustapha ma insiste ci loolu mm-hmm. mom du suma serigne waaye kilifa la te yàllaa ko fal te dafa namp wilayatu don wilayatu am xam-xam jëriñ domi sénégalais bala sonko di jang ba sonko jang ba don premier ministre mu bëgg ko dëggal bopam fu kenn dëggalewul bopam, su demee bay no le war na ko seete mais nit du nit nit day ju te mën na am sa sonko dafa japp ci xelam ne sëñ mustapha mo suma bayla suma xarit bayl ma seeti ñëpp mak mom leneen la mu koy lu reuy parce que Sonko waxul ñu dara mais pourquoi ñu war a négatif daf ko xeeb Sonko mënut a xeeb sëñ Moustapha faalewul ko lijjantiwul ko demeewul noonu mën na am ñëlee dafay maslaa ak ñoom waaye xam na fi ko sëñ Moustapha sëñ Moustapha taxawee mu dencal ko lu spécial pour seeti ko seeti bu rëy man positivement lii laa xalaata ah. parce que awma droit xalaat leneen lu négatif macha allah. Mhm. macha allah mais bu ñu génnee ci point boobu pour bañ a dugg waa ah, bëgguma ñu ñu ñu polémique ko du polémique mais dama dégg même sëñ mustafaa ci boppam wax wax bu garaaw ci ñi sant si wax boobu diis na de sëñ bi. lan la wax lu garaaw. mu ne ñoom ñi nga xam ne ñoo sant si. Hmm. ñuy dox yaakaar ne nawloo naa leen te nawloo ma leen loolu rëy na de. loolu lu ci rëy. rëy na man ci sama dégg-dégg. lu ci rëy ci sa dégg-dégg. ah baatu nawle. Hmm. yow bu ma jàkkaarloog yow ne la nawloo ma la. defuma la nawle. Hmm. rëy na de wala rëyul. non yow comme yaa seytaane naa fex. <laughs> nit ki wax waxam nga ne dafa rëy expliquer pourquoi tu dis dafa dafa rëy ci man ci sama sama sama sama dégg-dégg ci sama tolluwaay li doon waaw mais wax jee rëy non attends xam ma ni ma ni baatu nawle non da nga seetaane koo nawloo seetaane bëgg a jaboli sa sëñ suma xarit bi donc bëgg a jabolise moo tax nga yaa may def la ma Kaliphone defoon de <coughs> ah dangaa bëgg a wax Cheikh Ahmed Cissé ak El Hadj Malick yem ak sëñ Touba ñoo ma mais sëñ bi non franchement